Ciao. Assalamualaikum mbokku talibé yi ma ngi tuddu Ndeye sali di tiant ak ngërëm si magal gi macha allah dara manqué fu magal nañ ci jamm ak salam ñal nañ ñaan yalla yalla nangu ñaan kep ku fi am soxla ñew ñaan ka fi yalla na la ko suñu borom nangul su barki Serigne saliw magal nañ ci jamm ak salam wax deug yalla yalla mi am jamm yalla ñun ñepp am jamm su barki leer Serigne Touba Mbacke. assalamualaikum warahmatullah Serigne malay lay man la pap waaw. ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax vraiment màggal moom wax dëgg yàlla niñ ko dundee dund nañ ko dund bu neex waaw jóge nañ fii ba Dakar ñëw fii ngir Serigne Touba waaw ñu ngi ñaan képp lu fi waaye ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke sëriñ Touba. ñu fekkee ko ay at yu bari bëri màggal moom vraiment neex na sant nañ ñëpp gërëm ñëpp képp ku fi ñëw yaa na la yàlla defal jàmm nga delluwaat aussi ci jàmm ñi ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ci barke Seydina Muhammad ñi ma àndal ñëpp sama oto ñoom ñii nawet moom ñëpp maa leen di sant waaw jërëjëf mbokk murit yi leen nuyu ku si nekk sa tur sa sant di am contentement bu baax a baax a baax baax ñëw teewee màggal gi waaw di am contentement bu baax di rafet lu lii waaw di sant Serigne Touba bu wér a wér a wér a wax ni màggal gi dundee nañ ko waaw nu doy waar sax ay kéemtaani kase la màggal gi màggalu ren 2019 bi ay kéemtaani kase la dañoo kontaan trop di sant Serigne Touba bu baax lekk yi nee na gàññ yi nee na gàññ kontaan nañu trop waaw di sant wa Merveille TV nag bu baakha baakha baakha baax man maangi tuddu dam ñang maangi dekk yembal nor di sant sama yaay di sant sama papa di sant sama wa ko ñepp di gërëm ñepp di gërëm Serigne Touba wër lepp lu fi ñaan nak yalla ko yalla nangu ak Serigne Touba borom magal gi ñi koy ñaan lolu barki Serigne saliw ñu maye ñu fekk magal di gërëm di sant ñepp di ñaan yalla mu may ñu fekk ko ay yoon yoon yoon yoon sàmm ñu fi ñew ñepp ñu ñew ñu ñewé ci bisimilahi rahim ñu ci rabbil alamin di santat bu baax di gërëmaat khadimu rasul di ñaan képp koo xamante ni jóge nga fi ñu fas ci màggal gi yàlla na la suñu borom defal xéwal yu gën a kawe sa njot may ñu ndam ak xéwal sant gu wér a wér a wér jërëjëf Seexul Xadim jaa jëfa si Ahmadou Bamba Xadim Rasul Touba ca kanam. jumtukaay yi ñu war a liggéeyee ci loxo la ko def toppatoo nañ ko Touba ca kanam ñoo ko jëm féetewoo liggéey. nuyu baax Bamba bi lépp lu fi waaye jëlee si ab yor rek yal nañ ko bokk ak jullit yëpp yal nañ ko bokk ak doomu aadama yëpp ku ñëw Touba ku ñëw Touba yëpp lu fi waay jëlee rek yal nañ ko bokk ci barke yonent bi màggal gi wax dëgg yàlla macha allah neex na trop neex na trop yal na yàlla xeeb dolli yal na yàlla xeeb dolli képp ku fi ñëw ren bu déwénee yal na yàlla indiwaat képp ku ñëwul woon bu déwénee yal na yàlla indi si barke yonent bi waaw.

barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa barke maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp di ziar sëñ Muntaxa Mbàkke Bachirou ñi nga xam ne moo fi toog toogaayu Serigne Touba di ziar sëñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi toog xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ñu dafa neex wàccaay màggal waaw ñun murit yëpp bëgg nañ ndax foo dem dañ lay teral macha allah ñun suñu dal sax waaw mun nañ ne ay ndox lañ fay naan mais fay fépp lañ ñu dalal Serigne Ba moom ay mbiram dafa dafa neex waaw parce que doon murit rek a neex ñu ngi sant Serigne Touba bu wér a wér waaw di gërëm suñu wasiila di ko ñaanal moom it mu yàgg fi wér a wér barki Serigne Bamba Mbacke ziar Baye yëpp ñu ngi di ziar barki Cheikh Khadim